salaamaaleykum suñu mbokk internet yu Dakar Net dañu kontaan bu baax a baax ci topp bi ngeen ñuy topp mbir mu doy waar moo am fii samedi ci guddi bi 22h jotee benn étudiant bu ñuy woowee Philippe moom la agresseur yi daal di dab daal di koy agressé moom nag euh, li waral mbir moomu daf doon ndox ànd ak ñaari mbokk étudiantam ay jigéen ñooñu bi ñuy ñëwee agresseur bi ñuy ñëwee ñett lañ dafa joxe portable ñooñu dañoo joxe seen portable moom mu bañ. bu mu bañee si lañ ko jam ci dënn mu daal di génn àdduna balaa sax euh, sappoor di ñëw ak ñeneen di ñëw euh, mbir mi nag insécurité bu doy waar dafa am ci diggante bi cité Claudel ba étudiants yu bare bari di ko joytu ba sax démb euh, ci bëccëg ndar kàmm ci dimanche bi benn xale bu jigéen boo xamante ni benn agresseur tamit daf ko doon agressé muy daw oto daal di koy jël ba loxo bi ak tànk bi yëpp dafa dafa damm ba instant bi ñuy wax ak yéen mi ngi ci lalu hôpital yi ba sax agresseur boobu daal di nañ koy jàpp fekk ci moom fukki portable agresseur bi sax nee na moom pare na pour faj étudiant étudiante bi waaye nag euh, loolu dañ koy bàyyi ci loxo yoon dañuy dugg ci biir xool université bi xool étudiants yi nan la ñu dundee mbir mu doy waar mi nga xamante ni moom moo fi am. ñu ngi leen euh, maa ngi leen di fay. yow étudiant waaw man étudiant la master de euh, département physique faculté de sciences voilà. Euh, bon mu ngi nekk loo xamante ne vraiment ñu ngi koy euh, vraiment dafa nekk lu lu metti suñu xol en tant que étudiant parce que euh, nekk étudiant dafa nekk loo xamante ne dafa jafe et puis étudiant aussi neexul donc képp ku nekk da ngay ñëw fii pour jàng. pour euh, am xam-xam ndax bu ëllëgee nga mën a bokk ci ñi euh, tànn ci ci ci ci àdduna si voilà donc lii nekk na loo xamante ne c'est un acte de barbare donc euh, kenn rafetluwu ko donc koo xamante ne dafa wut si xam-xam et amuñu dara loo xamante ne war na mën a tax ñu koy agressé pour ba di ko rey donc nekk na loo xamante ne vraiment Sénégal rafetluwuñ ko te étudiants yi am na lu leen métti en fait. donc ñu ngi ñaan euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorités yi ñu mën a jóg vraiment pour ñi nga xamante ñoo ñoo def acte bu mel ni ñu mën leen euh, euh, woon li nga xamante ni loolu moom mooy yoon te yoon parce que Sénégal c'est un pays de droit donc nañ vraiment ñu fulal li ba ñi nga xamante ñoo def acte bi ñu teg leen ci yoon. voilà. ñu mbokk internet yi euh, comme ba léegi niñ leen ko waxee woon ci euh, nuyoo bi euh, mu mel ni mbir mi ba mu amee ñi nga xamante ne ñoom ñoo faral doon faral di jaay fi Jean la di def master moom ci boppam joxoñ na baaraamu tuuma responsable COUD bi maanaam ki nga xamante ni moom mooy directeur COUD bi ndax nee na sécurité bi warul yem rek fi nga xamante ni moom mooy université mais sécurité bi dafa war a wër université bi ñu déglu ko. mu leen di fay mhm, fac science waaw barki démb dañoo dégg fii benn euh, étudiant bu ñu rey ñu ngi koy ñaawal torop di koy ñaanal moom yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana li ñuy naqarlu torop ndax fii dafa xaw a am tuuti insécurité suñu sañoon nag kii yi autorité yi ñu jëm cee def dara pour mu xaw a améliorer tuuti moo gën ndax ñun presque ñooy euh, ëllëgu réew mi quoi. sëñ ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Euh, mën nga ñu wax ci mbir mi doy waar bi am fii naka la demee. waaw affaire bi samedi la xewee comme man damaa xewoon samedi fii lay liggéey quoi fii laa xëyee ba ay boor 18h euh, ma wàcc fi ma dëkk nag soriwul après bi ma demee nag am na am na benn maire fii lay jaay euh, mbokk day toog fi ba ay 22h moom mu fekk na mbir yëpp comme man fi mu dëkk soriwul bu ñu déggee yuuxi après ñu ñëw ñu génn waaw parce que benn gaayen benn étudiant la mu ànd ak ñaari xale yu jigéen. ñu dem ba euh, euh, terminus soixante kii 37 fan la mbir mbir mi xewee quoi benn instant waaw ñaari agresseur bon ay ay téléphone la lañ jël ci ñoom quoi ñetti téléphone comme que xale bu góor moom da doon jéem a tuuti moom daa fekk ñu jël ñaari téléphone xale yu jigéen yi mu des ku góor bi comme que boo xam nga góor moom buy ànd ak jigéen da ngay jéem a riposté tuuti quoi benn instant comme dafa dafa dafa doon yéexantu pour génnee téléphone bi sa waay da koo jam jël téléphone bi benn jam la ko jam fii la ko jam ci poitrine bi quoi waaw benn jam rek la la ko jam mu mu wàdd. ban bon vingt heures vingt une heures vingt deux heures. guddiwul. non guddiwul franchement fii moom boo gisee loolu muy am instant bii ni fii ay commerçant yu bari fee ba fee cat ba cat dafa amoon ay ay kii tamit ñu def suñu benn gardien. moom moo moo moo sax moo moo taxoon mu am fi sécurité bu baax parce que comme moom dafa maîtriser euh, secteur bi zone bi étudiants yi bu ñuy génn moom dañ leen orienté bu leen jaar fii fii dafa xaw a kii ñii ñu orienté ñu jaar nii ñii ñu jaar ci pont bi jël defaan ni mais loolu ñu dëgër piir ñu depuis mois de février 18 février mu am fii amu defuñ fi dara. léegi dafa mujje wéet daal. waaw dafa mujjee amoon na beneen bu gën a garaaw. Hmm. billaahi démb benn benn xale bu jigéen mu taxoon na fi ab benn xale bu fii la woon fii la xëy moom mooy côté vingt la. léegi nag bon xale bu góor bi xaw ma bu agresseur la nag parce que nañ ko nañ ko mujjee jàpp sax yóbbu ko police. waaw bi mu demee sax moom moo avoué parce que boobee da ko da buux. waaw oto oto ramasse ko oto bi da koo diri ba fee. mu am ñetti fracture. di ko agressé xale bu jigéen bi buux ko. bu góor moo ko buux. xale bu góor moo buux xale jigéen. waaw après nag bu mu ko buuxee nag ci tali bi la ko buux quoi benn ñëw nag taximaan bi ñëw nag jël ko. da koo xale bu jigéen bi. waaw da koo diri ba fee mu ñetti fracture. après nag yi am nañu booy yu newoon fii après ñu jël gaayan bi ñu yóbbu ko police ñu fekk ci moom cinq téléphone moom si dafa avoué mu ne agresseur la am na xaalis. léegi nañ ko bàyyi mu dem faji xale bu jigéen bi. agresseur bi boobu moo bëggoon dem faji xale bu jigéen bi. moom si boppam mu ne day day jël en charge xale bu jigéen bi. kon daal à l'espace jours ñaari mbir yu daw moo fi moo fi am. alhamdulilah samedi ak dimanche la motul sax trois jours xam nga loolu dafa métti fii moom amoon na sécurité te dañ ñoo jëlee fii tey defuñ fi dara loolu yokk bagage yi instant euh, agresseurs yi dañoo am doole instant bii parce que gisatuñ kenn. looloo tax mu affaire bi muy gënoon na am depuis 2014 ñun 2014 lañ installé wu fi fii àll la woon kenn ñemewoon jaar fi ñu ñëw defar ko ba gars yi ñeme daaw sax lañu installé lampe yi affaire bi mu instant kenn newatu ko looloo tax gars yi di am doole di agressé. grand ñu lay nuyu. ñu lay fay baay ñu lay fay ñu si. lan nga ñu mën a wax si mbir mi. waaw mbir mi moom ñoo la ci wax moom ndax temps maa ngi dégg ni la am benn étudiant boo xam ne dañ ko fi agressé yooyu noonu hmm. te étudiant la mais tamit kooku noonu xam na si yoon moom waruñu ko woon sax di ko agressé ndax boo ko fekkee nii yoru loo xam ne tey jii nii mooy loolu ku dem ba bàyyi ay dëkk-dëkk di ñëw ba fii nii ngir jàng si xam na dafa bëgg a tekki la xam na yaayat bàyyi quoi xam na tamit mooy loolu bëgg leen dimbali mais boo demee ba ngay lu doon ay étudiant ba la xam ne tey jii nii doo fekk si moom dara ay kii nga fekk ay kii muy jànge mais tamit loolu nga def nga tey jii nii yaa def boo xam ne tamit at bakkan lu mu fooree tey jii benn pertement boo xam ne tey jii nii koo xam ne tey xamoon nag fu papaam ak yaayam fu mu tolloon ci moom ak lu mu naroon defal ay yaayam léegi nag yow nga ñëw jël ko nii nii yow tëral ko nii nii quoi te loolu moom mooy loolu. mais yéen ñi nga xamante ni fii ngeen di liggéey ci wetu canal bi euh, dañuy wax ni tout le temps di jàmbat naan dafa am insécurité maanaam amul amul sécurité loolu loo ciy wax. waaw insécurité bi fii moom moom mooy loolu ndax des fois fii moom booy fii mooy côté fan bi te fii nii. yoon yoon bu muy génnee te mooy loolu te fii nii day xaw a wéet du am ay dëkkuwaay yoo xam ne fii nii mooy loolu amul ay dëkkuwaay wala fii boo xoolee si ginnaaw fii nii université bi kese moo fi nekk te boo xoolee genn wàll bi yëpp ay kii ñoo fiy jàll ay étudiants kese kese kese ñoo fiy jàll ak oto yi moo tax des fois mooy loolu.